li ci yéene kaay yi yéene kaay yi l'Obs, Pop, L'As, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf, Le Matin ah! andikum suba la feetu indépendance bés bi Sénégal moom boppam alhamdulilahi te mooy yéen a kaay ñu ko xamal juróom fukki at ak juróom-ñaar boobaak léegi ca atu 1960 la woon ba ren ñu ngi ci 2017 waaye yéen a kaay bi nee na suñu waxantee dëgg senegal ba léegi moomagut boppam a yaw seetal yow indépendance boo xamante ne li ngay lekk bitim réew nga ko yaakaaree li ñuy liggéey di ko defar ci ay industrie bitim réew nga ko yaakaaree fa koy jëlee maanaam ci gàttal mboolem lu Sénégal soxla di ko dundee mu am ci réew mi ci waa bitim réew la ñuy wéeru ngir mën koo am kon nag loolu ndax indépendance la fenn daal la ñu am indépendance mooy wàlluk armée bi takk deri soldat si waaye li ko des yëpp dañuy jéggaani ji Déthié Fall bu parti réew mi na wax ji nañ leen ko wax bu leen ko raay Macky Sall njiiti réew mi dafa tële biñ ko dénkee réew mi ba léegi réew mi dafa deltu ginnaaw askan waan ci ay laa si na kaay ñu ko xamal Moussa Touré nekkoon fi ministre mel ni ku koy dëggal ba tax ci l'observateur nee juróomi at fi njiit réew Macky Sall def baaxut santut yàlla bilan bu bon la fi def wal fajiri ko may moo yokkal la ci xam nga njiit réew Macky Sall dafa santoon Amadou Makhtar Mbow na ko mu defal ko assise nationale wax ko coppite ak li mu liggéey réew mi maa ngi leen di ko defee ba léegi Macky Sall xoolul sax la tukkee ci assise ko defaanut ko te sonn nañu damm nañu tàyyi nañu ci doxalinu njiit réew Macky Sall ni yore réew mi baaxul sant yàlla ba tax na juróom-ñaari fan ci weeru avril danañu wàcc ca a ci même bés bi farandoori njiit réew Macky Sall yi danañu amal doxub mbégte ba tax yéen a kaay bi ne le 7 avril bés bu nar a garaaw buñ moytul fitna dana jóg ci réew mi Moustapha Cissé na ko waa yaanaa maar yi opposition bi ñoo nekk seen ginnaaw jox xaalis ngir ñu wengal gaal gi ànd ci réew Yaxam Mbay ci l'Observateur yéen a kaay bi nag ne Mohamed Ndiaye Rahma laata muy jëli Matar Diagne sëñ Babacar Mbacke mu kabaroo satut sëñ Touba ba moom la njëkk jëli andi APR jël na fa sax kaddu ministre Matar Ba bi nga xam ne moo ñëwoon présider ko moom it dugg na attaqué waaye ana maar ne du ñooy kii xoqatal njiit mi Macky Sall l'évidence yéen a kaay mel ni ku leen God, John. ko ñaari entrepreneur yu ko war a tabax ñañu tabaxal ay kaso ba dugal leen fa di ay soxna tey l'observateur moo leen seeti ngir càmbar seen nekkin rawatina soxna yi nga xam ne dañuy ëmb am doom ci biir kaso gi seede yu daw yaram am na benn soxna nee na man biñ may tëj kaso booba ñaari weer laa am ci kaso gi laa amee doom tey jii may wax ak yéen sama doom ji bu ma gisee sax du ma xàmmee xam ngeen ne loolu métti na tàggat yaram wuré wa dem na këng waxi mag dem na nday taali la ñu ne ko wàccee ñu yóbbu la suñu oto ba mu bañ na du ma dem gaa yi xëccanteeg moom rek mu wan leen di ndeke waa ji dafa ponkal am doole dóor na leen kurpeñ yoo xam ne waa teg nañ ko loxo yóbbu ko ca commissariat ba ragal